ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم روى ابن ماجة في سننه ابن ماجة صلى نتي téeréem bu màgg boobu ñuy tuddee sunanu ibnu maaja xam ne bokk na ci juróom benni téere xadis yiñ gën a ràññee buxaari muslim abu daawud nasaiyu tirmidi ak ibnu maajata nee na xaddasanaa abu bakrin xaddasanaa nettali nañu abu bakri ibnu abi cheybata an baana xabaare nañu abu muawiya عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه mu ne qaala abu hurayrata nee na qaala rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na inna athqala alsalaati ala almunafiqina dëgg dëgg julli yi gën a gën a diis ci naafeq bi julli gi gën a diis yi salaatul ishaa yi mooy julli eh, gee wa salaatul fajri ak jullik fajar ci mboolookat lu koy wane mooy lam ca walaw yaalamuuna suñ xamoon maa fiihima la ne ci ñoom ci yiw ak ci yool la atawhuma danañ leen dikkee walaw xabwan su dee sax dañuy raam ba yegsi ci jàkka ji danañ dikk julli si gee ak fajar ci jàkka ci xadis ji ibnu maajata solo na ko waaye daa fekk ci buxaari ak muslim ak ci yeneen téere danga nga gis sax mu gën a guddoo boo xoolee Buxaari ak Muslim yonentu sallallahu alayhi dana ci wax ne mu ngi doon yittewoo maanaam mu ngi doon ngéeju am ndigal rek ak yërmandeem ju bari ji yëpp terewut mu wax loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel mu ngi doon ngéeju rek um, mën a wax muaddin bi ne ko liqaamal ma jiital jiital kenn ci yéen mu jiite julli gi ma am ñu ma àndal ñu dem taali kër yi ñi nga xam ne nanguwuñoo julli si ci jàkk ji nanguwuñoo fekkee si jullig mbooloo mi jullig mbooloo mbokk yi gënee na julli kenn lum tuuti tuuti ñaar fukki daraja juróom ñaar ku nekk ci ñun bëgg na sa business am tono am bénéfice te ñu ngi ci maxata amal station bi ñu toll mooy station liggéey fañ jëm mbokk yi liggéey amu fa fayu rekk a fa am nañ nañ boole yoo ñun ñëpp ñu gëm a góorgóorlu ci liggéey boobee te ñaan sama borom nangul ñu ko te defaral ñu suñ biir ak suñ biti